xoolal rek orange ñak respecté gi ñak respecté sénégalais 19 minutes ma ngi leen di wo 19 minutes ya, wo yooguñ dix neuf minutes numéro bi mo yor sen sen sen sen numéro ki sen wifi yi ñi ñiy jaay pour nga jot len ci numéro bi xaaral ma coupé léegi kenn amul temps da ko mën ba une heure trente du ñu